jërë ngeen jëf ñu ngi ak euh, suñu papa Mouhamed Ali euh, nekk ancien lutteur nekk manageru euh, le Panzer de Waalo di Lac de Guiers papa ñu ngi lay nuyu. maa ngi leen di fay di boo defal ñun ñëpp ak yéen di sallallahu alayhi wasallam. ñu gisoon fii ci CNG tey ci ndaje mi CNG doon am ak promoteur yi lan moo ko waraloon. ah xam nga moom ñoog promoteur xam nga noonu moom moo tëgg suñu combat moo ne woon naa ñëw fekk ci fii naa ñëw ñëw naa léegi fekk naa sax juste ñuy waxtaan ba pare. waaye ñun lu ñu itteel mooy sunu combat moo taxoon nu ñëw te incha allah comme maintenir nañ ko la 4 avril ñu ñaan yàlla yàlla yóbbu dafa ak jàmm ñu fekk ko. ñu gis ne sa mbër ak ki nga xam ne moom mooy Eumeu Sène ñi ngi doon laaj li des ci seen avance est-ce que jot ngeen ci. jot nañ si desaluñ ñu dërëm fii mu nekk nii un franc desaluñ ñu ko suñu lépp mat na tabaarkalla léegi kay. kon lan moo ci des. xanaa sëgg bëre du ma daan ñibbi soow yàlla. nan ngeen war a jël si seen revanche. waaw dama war a jël seen revanche comme ëmb moo daanoon kay te moom rek moo mos daan il faut nu jéem fayu ba kun daan nu fay xam nga waala moom képp ku leen daan moom la wóor ne ba nga séenu xam ne yar ba nga naan dóoroon awal leen ko daañu fay si. incha allah na nga préparé wu ba yële yàlla ak dooleem yàlla suturaaloon dimbaloon bay nu fayu dina ma daanoon jël. lu mu jaral su suñu bakkan lañ jaral su mën naa ne jaral na suñu bakkan sax lu mu jaral am ma seen jaral nu bu bu jaral am ma seen fukk nun jaral nun téeméer ndax moonu mas daan laata guerre su muy bëree ba léegi am ma seen moo ko mas daan keneen mosu ko daan kon il faut nu fay ñu kitoo bu ëllëgee bu ñu bëree waatee troisième euh, troisième combat wala quatrième combat ñu xam ne xel nag kon daan nga sa moom ko nag yoo xam ne yooyu yaa mën waaye léegi comme daanoon nañu daal fa seen fayu daal moo tax a jóg fii nekk nii xam ngeen fi leen bi mën a yóbbu. ah xam nañu kay noonu làmb yéen gis nañu ko man miy bàyyam di di menacer man bëre bu ne làmb bu ne bëre naa ko kay xam nañu làmb bu ne làmb la mais nag aussi lu am moom mooy sabablu xam nga da ngay sabablu pour daan yàlla nag moo xam koy daan mais war nga ñaan yàlla si bëgg-bëgg ñaan si yàlla yàlla kàttan nañu rek ñu daan ko. pare na bu ñu woon suba la combat bi sax mun na acc suba soo bu ñu woon suba la ñuy bëre mun na ay ñu suba sëgg bëre si ñu gis mu nar a bëree si combat bi buntu kër Eumeu Sène ku ne xam ne ne are nationale bi biir Pikine la nekk loolu du loolu du leen wàññ waaye bu newoon si biir néegu Eumeu Sène ñu bëre ba hmm? maa loolu xam moo loolu moo gën de biir néegam ñu fekk si biir néegam ñu bëre foofu daan ko fa romb waa Pikine ñibbi si jërëjëf papa jërëjëf